sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. naka nga tudd. man maa ngi tudd Mamadou Mbaye. dëkkandoo Awa Tunkara. waaw ñoo dëkk man maa ngi dëkk premier étage moom mu dëkk de troisième étage. waaw. depuis ñaata temps ngeen dëkk ensemble. bon laa fii personnellement man xaw ma ko. xaw ma ko sérieusement man kii laa xam grand frère am. Euh, Tunkara lañ koy wax. ñoo dëkk avec sa femme Sali ñoo dëkk. donc seq nañ jàmm. bon c'est boo xam ne doo dégg sa seen baat en toute vérité doo leen dégg dégg seen baat ba dama leen di tooñ sax damay tooñ ko jigéen naan bàyyi jaam ba ngay tëj affaire yooyu donc la fille je ne la connais pas bi ma bi ñuy waxtaan man ak euh, magam bi événement bi affaire affaire bi amee drame bi amee ba magam dafa ne lundi la ñëw lundi la ñëw donc affaire am mardi voilà. léegi affaire bi moom nan la nan loolu la ñu loolu wax ni nit ñi mënuñu ko expliquer c'est passé trop vite c'est passé trop parce que nit ñi xalaatuñu woon événement boobu vraiment parce que ñëpp dañoo toog romb na fii ci fii nii romb dugg ci boutique bi jënd tàngal jënd tàngal man je pense dugg ci kër kër ga la à côté foofu la dem ab fa buub buub mais kenn xalaatul ñuy jot ak ñuy ko jot a gis xalaatuñu ne lool la bon ci tàng-tàng mi gis nañ mu jékkitee rew wadd wadd fii dal ci benn motocycle yooyu mooy Adja Doore xaw ma wadd fii affaire yooyu mu def mu daanu mu def soog am direct affaire yooyu yëpp ñëpp tiit am na ñoo xam ne dañu foog ne bu ñu rey la rek santi ñëpp daw ñëw ñëpp ak bon ñu woote pompier ñu fexe ba pompier ñëw mais pompier xaw na tardé après trente cinq quarante minutes lañ fi ñëw ba bu ko yóbbu dara amul deewul deful dara sérieusement. amoon na ay gaañu gaañu. am na ay gaañu gaañu amoon na ay gaañu amoon na ay blessure amoon na sax mu génn direct affaire yooyu quoi mais affaire bi daal ñëpp la surprendre si koñ. bo ci tàng-tàng parce que dafa amoon buum ci ndigg bi nit ñi dañ doon avancé thèse suicide mais. buum bi la tàkkoon si ndiggam si ndigg bi. mais après bi affaire avancé bi ñu demee ba xool nu mu takkee foofu on a compris que dafa bëggoon na wàcc seen biir balcon parce que seen bunt bi dafay coincé bu ko tëjee donc xam naa es dafa ñëw di jéem a ubbi ba son kiiwul mu dem uti buum pour mun a am pour jaaree ci balcon bi malheureusement. boobu peut-être dafa def parce que buum bi mu jël du buum yooyu buum yooyu la ñu wàcce foofu parce que buumu nilon yi la jël yu ñu defee ci lii ji pour weer yooyu la jël takk affaire bi dagg soo gisee sax bi affaire bi daggee mi ngi jéem a ñefe pour jàpp yi beneen buumu Sonatel bi moom la daggaale ànd ak moom ànd ak moom daanu bon ñu nekkoon si néeg yi parce que naaj dafa tàngoon. ñuy ay yan heure la woon. juste avant 14 heures ah. léegi nit ñëpp yuuxandoo nag génn ñun ñëpp. keneen ku wax leneen rek dafa wax lu la neex loolu moom loolu kenn peut-être kenn mooy gis bu muy wàcc wàcc parce que peut-être ki nekkoon fële la Amaas mooy gis bu muy daanu mais kenn xamul lu ko bu mbax ndax dañ koo bu mbax wala nangam kenn mënu la wax loolu mais lii affaire bunt bi coincé nag moo ñu moo tax ñu ñu déduire ne dafa doon jéem a jaar ci balcon bi donc thèse suicide moom dañ ko dindi carrément parce que amul dara lu war a tax. muy suicidé wu ñi ko xam dëgg loolu lañ même son frère mu ne waaw moom lan la war a mën a defee loolu man xaw ma quest parce que son frère il était dépassé parce que mënul comprendre quoi lan moo tax mais son frère mu ñëwee li mu njëkk mooy daaj buntu bi. xew fekk ko fi. fekk ko moom rek moo fi nekkoon moom rek moo fi nekkoon wax dëgg yàlla donc man comme li ma la man xaw ma ko personnellement xaw ma ko. léegi son frère bañ ko wooyee mu ñëw nañ la réagir. bon il était. presque dépressif ah parce que affaire bi sa daf ko jëlee kaw. xam nga bàyyi nit nga bàyyi ko ci kër gi. parce que mi ngi naan bi mu ñëwee lënd bi mu ñëwee ci lënd moom sax moom moo débrouillé reer bi moom ngel bi moo defar reer ñu reer bu mu xëy suba dem bàyyee ko 5000 dépense dem xam nga kooku nga bàyyi ko mu nekk mu nekk ci état dem nga dem liggéey sa derrière toi ñu woo la ne la daanu na. xam nga ci choc bu choc bu métti bu métti dee bu metti la loolu daal moom loolu moom moo am léegi moom ba mu ñëwee ni mu def ba dugg si kër gi moom son frère puisque buntu bi day bu mu ñëwee moom automatiquement première kii bu mu ñëw parce que jéem na ubbi ci ubbi dafa woote dafa indi menuisier ou bien quelqu'un mu ñëw daajal ko bunt bi loolu la bunt donc ñun tam si lañ comprendre ne effectivement mënu woon am accès si kër gi parce que bunt bi dafa coincé mu dem nag def ay pexem boobu nag dafa répondre c'est comme ça loolu la demee merci beaucoup merci